Okay, AIDS Free Wall, an international advocacy organization that exposes injustice sustaining HIV, has accused Equatorial Guinea of refusing to serve exiled Gambian former president Yahya Jammeh with a notice of civil lawsuit by survivors of his controversial HIV AIDS treatment one ruthless dictator is protecting another ruthless dictator. The international community must not stand silent in the face of such lawless behavior. Um, details of that story, of course, on the standard newspaper. Ki like <coughs> equatorial Guinea, they leen accused of refusing pour and the Gambia's former president Yahya Jammeh to the Gambia because of his um, HIV/AIDS treatment. mu ne so gars ñu ne um, Equatorial mm. wan ma sa xarit ma wax la jikkoom. la mu tànn ci xarit ba nag ba dem fa <laughs> yu mel ni warta bett kenn eh, ndax loolu daal man laa ci mun a wax bu fekkente ne xamoon na ne feneen fu mu demoon tey fi yëf yi toll nii du am kenn ku ko làq wala du am kenn ku ko bootal ginnaawam konoon jàppuñ ne dina doon jafe ci demam ak ni mu tànnee Guinée équatoriale Guinée eh, ba dem fa bu fekkee nag dem na fa ñoom ñu ngi wax ne ñoom gisuñ ko wala mënut a jot ci bataaxal ba ak yu jëm ci yooyu mu ngi noon daal wala ma sa xarit ma wax la jikkoom daal man laa ci xam man moom lañ gis fii. waaw loolu foog naa ne di sayn sa seba binde ñoom yàgg nañ ko wax euh, jàmme dañ caa nekk di ko protect you know agreement xëy na buñ def ak moom moo tax ak yooyu waaye euh, I think ne su fekkoon ne daf doy yomba xeej na comme ñëw euh, saaf pétition bi wala li nga xamante ne moo lawsuit bi niñ ko nuñ ko bëggee konoon ñu bëri def nañ ko parce que am na ñu bëri ñu ngi nga xamante ne mooy HIV and AIDS survivors yi rek euh, am am na ñu bëri ñi nga xamante ne you know bëgg nañ ñu indi Yaya Jammeh to to justice waaye foog naa ne de feel ne du yomba di yomba as a former president di yomba tamit ak fu mu nekk because ñooñu dañ ko bëgg a aar ak yooyu so you know xam naa daal mu ngi noonu euh, démba tamit xaw ma barki dem am na leneen lu ma ci déggoon xaw ci écoterre ak moom tamit ak yooyu waaye daal mu ngi noonu euh, Babili Mansa daal jamono ji <laughs> mu ngi foofu ci écoterre gi nag xam naa daal ñu ko soxla bari nañ mm-hmm. waaw te xaw ma nag lan mooy xew afta